dund gi daal lañ ñu indil leen di jaajëfal bu baax bu ñëpp defoon ni ñoom daal réew mi jëm ca kanam maa la wax lii ay <laughs> ca loo ñu indil mbay tey ci euh, càmm gi waaw dañuy waxati ci euh, élevage bi rek lañuy waxati càmm gi waxati euh, moment yi moom Euh, dara yi tooy na mhm. gis nga nawet bi nawet ak jëndum xar nawet ak njaayum xar mhm. ak euh, situation yi nga xam ne xar yi ma romb tey si fayada yërëm naa leen torop yërëm nga leen mais nag euh, bu ñu tooyee rek bu seen yaram tooyee rek mhm. dootuñ ko sentir bi seen yaram guusee lay metti ah, xar moom bu guusee nit sax bu guusee tànk taw tewoo ba tooy dootoo def dara day mel ni da sangu mais boo guusee rek daf lay indi ay jafe-jafe te ci xar yi noonu la mel mais fi nekk nii Fatou daral yi point de vente yi tijji nañ ko euh, am na yu ci bëri yoo xamante ni ay travaux amoon nañ fa déplacé nañ ko comme ni ñu ko fi waxoo woon fan yi passé ci émission yi passé mais moment yi euh, dafa am loo xamante ba tey am na daral yoo xamante ba tey éleveurs yi ñu ngi xaar pour ñu defaral leen daral yooyu pour ñu man fa dem exposer fa seeni xan ku ci mel ni daralu fora bi tàmbaleeguñu sécurité amu fa. Mhm. defaruñu ko camion yi nga xam ne ñoo yemoon ngooñ bi mu ngi fa am na ay éléments yi nga xam ne jëloon nañ ko seetaan ko te ñëw. Euh, mbokki éleveurs mbokki waa Sénégal ñi ngi jëm ci tabaski 2020 te comme niñ ko daan defee rek euh, dañ ko fas yéenewaat ren bergerie Xaadimu Rasuul wër point de vente ci Sénégal yëpp pour que nit ñi xam fi xar yi nekk ak catégorie xar yi fu ñu nekk su ko defee ku ne xam fi nga war a demee wuti say xar maintenant nag di ci profité waale di lancé waale un message important surtout ci eh, suñu mbokk éleveurs yi ndax xam nga ni mbas mi ba léegi mi ngi fii nañuy respecter les mesures barrières vraiment di protéger wu parce que dafa am solo euh, boo nekkee ci am réew li kilifa yi wax ne te ñoom information yi ñu am ñun amuñu ko te ñu wax ni nañu jël matuwaay yi ne ko ñëpp respecté surtout nag euh, période bi nga xam ni dañuy dajaloo di danqalikoo nekk xar yi vraiment nañu respecté les mesures barrières loolu nag bu bu bu jeexee ma ci teg ni xar yi tamit euh, comme dañu nekk ci jamono bu xaw a difficile frontières yi xaw a serré tuuti malgré que ñu ngi koy ubbi xar yi di dugg si nànk-nànk ah ñun éleveurs Sénégal nañu génne suñu xar yi amul benn njëriñ ñu denc xar yi ci kër yi ah di xaar ay prix yu baax ak yu baaxu loolu amul ku ne sa wërsëg rek ngay am ci xar yi nañu génne xar yi ah li ñu soxla ci xar 750 mille 800 mille xar am na fii ci biir Sénégal nañu ko génne te nga xam ni xar yi bu yii bu ñu demee ren seen rakk yaa ngi fi dañuy màgg déwén ñoom ñoo leen di remplacer noonu la élevage di doxe donc loolu tamit vraiment c'est un message bu mooy lancé à l'ensemble des éleveurs maintenant di terminer tamit ci benn pàcc bu am solo xam nga dañ ni euh, il faut ñu fexe suñu dëkk i set te gis ngeen euh, ministère bu mel ni ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique li mu ci jéego yi mu ciy dox gis ngeen tey bu ngeen demee stade de l'amitié loolu rek war na tax éleveurs yi góorgóorlu gis ngeen stade d'amitié dañ fa naan nekk di buntu di di xat-xatloo ak garage yeeg ñi fa nekkoon ñëpp foofu nettoyé nañ ko ba mu set ren mu nekk point de vente bu leer nañ espace bu dey ñëpp mën nañ fa dal pour mën a jaay seen xar am sécurité am ndox am courant mais loolu nag bu ñu bëggee mu continuer ñun éleveurs yi bépp point de vente bu ñu utiliser ren bu tabaski passé ba le lendemain na ku nekk fexe ca la nga ca am ci wërsëg nga génne ko dajale sa ñi nga fa nekkaloon ngeen nettoyé ko ba bu fa état jaaree dana day mel ni mosuñu faa def tabaski loolu buñ ko defee chaque année dina nu bàyyi point de vente yi ñu continuer di ci jaay mais buñ ko deful ah nii dañ koy tilimal bàyyi ko état dana ko toppatoo duñ leen encouragé te fa ñuy mujje te lool duñ ci mën dara mooy dañuy yóbbu ak cinquante kilomètres de Dakar ah yi yu fa ñu fay jaay xar yi normalement loola doon yoon waaye comme may nañ ñu lii ñun nañu euh, wane ni vraiment dañ ciy waslu ak donc nañuy netwaaye bu ñu paree tabaski vraiment suñu point de vente yi surtout nag ma bëgg naa sax bu ñu génnee ci tabaski bi si à Dakar ma fexe ba dajale euh, FENAFO Renades ñu dem am tam seeti ministre bi yore aménagement espace public yi ah su ko defee ñun ñu joxe suñu contribution jënd ay garab jënd matériel ñun tamit ñu jël quelques points espace public ñun ñu aménager leen en tant que éleveur nga xam ne bu leen aménager bu déwénee sax ci foofu la ñuy defewaat suñu opération donc loolu aussi maa ngi ci woo ñëpp vraiment di leen sant di leen gërëm di leen wax déwénati alors euh, mi ngi euh, noonu ah euh, gis nañ <laughs> élément bi nga xamante ne ni moom la ñu mbay balaay jëlili woon ci instant yi ci yenn point de vente yi mbay Eh, Omar Sow di kilifa. jiite Renades euh, di ko jaajëfal ndax. Euh, pour ah, ñu amoon élément moom moo jiite Renades voilà mu ngi noonu ndax parce que faat que moment yi mhm. ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite éleveurs yi. da mhm. day baax ñu génn pour wax suñuy jafe-jafe. Euh, gis nga ni mu takkee maskam am mhm. noonu. doon kilifa ñëw représente taxaw ci biir daral gi nangu. partagent ak di leen jaajëfal bu baax ndax kilifa bu jiitee dara dafay faral di génn di wax di wax kat wax ak njabootam di waxtaan ak askanam pour ñu xool yan méthode la ñuy def pour mën a jëmmal suñu liggéey jëm ci kanam boo xoolee moment yi dara lii faat ka commencé naa tooy nawet bi commencé na sécurité bi ñu wax dara li ndox yi ñu waxoon euh, dina am ci daril ba tey gisaguñu ko mhm. te boo xoolee moment bi tabaski li ci des matatul euh, vingt jours matatu ko li ci des ay quelques jours moo ci des ñu dugg ci biir tabaski euh, xaalis amul ci dëkk bi mhm. dëkk bi metti na ak covid 19 bi ay weer passé activité yëpp tëdd comme ni ko ay sa waxee mais ba tey askan wi nañu bàyyi xel ni xar ni ma ko waxee woon mhm. xar ci boppam boo yoree loo jëndee xar teel a dem jëndi xar. Mm-hmm. bi ma ko fi wax boobu ministre bi génnagul def benn sorte. c'est vrai. moo koy wax ministre bi génnagul def benn sorte mais man bëgg naa loolu nax lan bu ñu naxante nañuy teel a préparer fi ñu nar a jëm bi mu génnee def sorte boobu man dama ci kontaan. ndax mu ngi wax xamal ni ku mën a jënd xar te ëllëg dem jëndi xar. Mhm. ndax situation bi ni mu demee nii buñ ñu taxaw di ñu gëmloo ni tijji nañ frontières yi xar dina am xar dina yomb te yow éleveur bay mën a jaay xaram mu ci ay difficultés yu metti président Omar Sow na wax wax bu am solo. éleveur yéen tamit bu ñu buleen leen seeni xar aj piri bi piri bu seer boo xamante ba askan wi pour ñu jot ci di yomb. te aussi tamit am na ay xar yoo xamante ni carrément jarul situation yi fu mu toll fii jarul ñu leen di téye bu leen yar ba déwén. nañ génne xar yi foofu la président Omar Sow doon waxee ma kontaan ci loolu trop. Mhm. nañuy génn xar yi ngay gis ku ci ni benn mbay balaay yor benn petit catégorie wala yor benn xar boo xamante ni mu ngi koy téye pour di ko réserver pour yar ko déwén te or que xar boobu bu ko génnoon am na ñu ko mën a jariñoo. na éleveurs yi génne xar yi te bépp éleveur boo xamante ne yaa ngi fii ci réew mi war nga dugal sa loxo ci tabaski mhm. nga dugal sa loxo ci tabaski bu ko ñëpp demee dootuñu soxla Mali dootuñu soxla Mauritanie mhm. mais il est tey ñu dindi suñu bopp ni bu Mali ñëwul wala Mauritanie bu ñëwul rek ñun suñu tabaski du baax mhm. suñuy autorité tamit ñu jàppale ñu pour ñun mën mën a produire xar yi nga xam ne askan wi dinañ ko soxla. et ñu bàyyi jéggaani bi wala et le ñu bàyyi bu dee bu dee beneen réew ñëwul rek. ñun suñu dara du jàkk. Mhm. fallait que ñu am expérience suñu bopp liggéeyal suñu bopp li ñu jub li ñu soxla maanaam ñu liggéeyal ko suñu bopp daal. mais mais Mbaye loolu est-ce que dina yomb parce que tamit li ngay li ngay wax nii xam nga éleveurs yi ñoom. Mhm. Euh, bu tabaski ay xar yu yu extraordinaire lañ lay génneel <laughs> tegal la ko boolaa ñu naan laan ay un million bu si boo bu si gën a ndaw sax trois cent et quelques mille lañ lañ lay lañ lay wax. et tey jii nii xar yi ngay wax na ma xaru pël-pël yi comme ni ñu leen di waxee. Mhm. yow sa bopp fu mu toll di nga mën a am xar. Mhm. donc li ngay wax nii est-ce que dina yomb parce que éleveurs lool ñoom nga ni maami xaar la ñuy. est-ce xam nga lan moo waral lool fàq moom laa lay wax. tey mhm. chaque jour. Mhm. milieu boo ci mënti gis. bu demande bi ëppee production bi rek. Mhm. day seer. li ñu soxla. ci xar produire ko. ndax lan amuñu espace wala fi am espace amul sécurité. tey ñu ci bëri bu ñu sañoon ñu am espace wala espace bi ñu am ci àll bi ñu dem fa def fa ay ferme di fa yar ay xar. jël lu man ni ay trente femelles. Mhm. yoo xamante ni que na nga leen di booleeg benn mâle muy produire ngay préparer tabaski. Mhm. Eh, mënoo koo am nax vol de bétail bi. boo fa demee def fa sa ferme def fa sa tool ñu sàcc sa aussi tamit dund xar gi dafa seer. Mhm. dund xar gi dafa seer. parce que je me dis que euh, tey jii mënoo tey forcer éleveurs Sénégal nga ne leen lii ngay jaayee seen xar. Mm-hmm. na Sénégalais bi am xar. Mm-hmm. te tey jii bu fekkonte ne nguur gi subvention woon na li nga xam ne moom moo jëm ci euh, euh, dund gi. Mm-hmm. kon tey jii bu ko neexee sax ñu nekk ci période pandémie tabaski jot mun leen yéen ñëpp quota bii ngeen di jaayee seen xar te dañ koy def. parce que tout simplement nangu na leen wàññil dundu xar bi. mais koo wàññilul dundu xar joxoo ko environnement bu baax mayoo ko possibilité mu yar ci ci ci ci mbégte mooy sacrifié wu di def ci xar bi ay millions jotee bu wàññil saxaar donc mhm. ñoom si seen droit la ñu nekk en munoo mhm. leen ko bañal mhm. tey nguur gi rek je pense que moom moo waroon doxalee neneen bu ko defee ñoom éleveurs yi gis si seen bopp askan bi aussi gis si seen bopp puisque nit ki euh, déjà cheral nañu alimentation ba pare aliment yi seeral nañ ko ñoom bu ñu génnee ko il faut ñu am ko il faut ñu génne xaas bari teg ci benn affaire mooy dañ leen jox seen seen doole la ñuy joxe ci yarum xar mi parce que koo ci gis amour lay defee etu tout waaw amour la ñuy defee et donc te man euh, li ma ci gën a jaaxal mooy da ngay dugg ci gétt yi gétt gétt euh, am ci koñ bi nga dugg fa fekk ay xar yu baax xar yoo xam ne nii day mën a tabaski et tout mais da nga gis waa koñ ba ci boppam dañuy génn daw di jegaani feneen mm-hmm. donc ki nga xam ne nii moom moo nekk ci biir biir koñ bi yor géttam ci ci koñ bi mm-hmm. euh, avant muy li ñuy wax la avant ngay laax jaay nga laax lekk ñi nga xam ne ni ñoom ñoo la jege pour nga defal yàlla rek mm-hmm. consulter leen nga xool la lañ am ci seen i poche nga defal nga defal yàlla surtout rawatina jamono ji nga xam ne nii dañ cee nekk jamonoy pandémie waaw du du yomb pour ñu am yenn euh, li Coro wax ah, ñoom ñu ci bëri euh, bëgg-bëgg bi rek moo leen ci bàyyi. Mm-hmm. bëgg élevage bëgg mm-hmm. xar bëgg mm-hmm. yar. tey doo xool liñ ciy gañe ñu ci bëri sax liñ ciy dépensé duñ ko ci amaat. tey xaalis bu dajaloo bi lañ ciy am. tey boo génnee lu man dix euh, xar nga jaay ko xaalis bu dajaloo di nga ci mën a def dara. di nga ci mën a investir dara mais tey jii dafa am lu coro wax loo xamante ni carrément éleveurs yi euh, jëndkati xar yi ñu ci bëri dañuy dem ci daral yor cent mille francs di ci xaru cent cinquante mille wala deux cent mille kenn ku ci nekk jëndal li nga tollool noppalaku noppal sa bopp kenn ku ci nekk jëndal li nga tollool da ngay gis koo xamante ni day yor benn quatre vingt mil am dem ci daral ba di xool xaru deux cent mille mm-hmm. wala na xaru quatre vingt mille dafa tool dafa tuuti ama te mais Aïssa tey jii famille nu mu manti mel nu mu du kenn ku ci nekk xam nga kilo ceeb li muy jaar doo yor njëgu kilo ceeb dem naan peeseel ma ñaari kilo mhm. kenn ku si nekk war nga mën a xam. Hmm. xar bi lii la mérito lii bu ñu sonal suñu bokk ci dara. te te dama la ci bëgg a yokkal ah, hmm. euh, mbay laay euh, tabaski tout deret bi kese la la si lislaam soxla loolu kese la. donc xar bu mag ak xar bu ndaw mu ba tey. yëpp déjà bëgg a ndawal un mois après. <laughs> parce que coro daa bëgg ndawal moom ay dibeex yooyu. bañ na dañ lay wax dañ lay wax ni. Euh, boo ko mënul wàcc na la mhm. jaamu yàlla la boo xamante ni yàlla tegu ko tegu ko kenn ku ko mënul mhm. boo ko mënul wàcc na la mhm. ñaata borom kër ñoo fi bis ñëw ñu mënoon di tabaski tabaski jël mënuñu ko mhm. ñu tëb beneen ba ñu man ko àdduna moo demee noonu mhm. mais bu ñu sonal suñu bopp sonal sonal ñiy jaay tamit nañu am yërmande xamal ci euh, askan wi di bañ a mhm. xool ay bénéfice yu bëri xamal di xàcc ay prix yoo xamante ni carrément bu fekkee classe ak mbay laay gi moom ñëw di jaay titre wala ainsi de suite boo leen mënee dajji daj leen mais néew di doole yi nga xam ne euh, ku ñëw di jëndi sa xar rek war ngaa xam kii mooy kan war nga koo mën a dimbali. Mhm. yërëm ko mhm. jëndee xar la nga ko jëndee woon sax. jaayaat jaayaat ko nit wàññi sa prix sax wala nga jaayaat ko nit ca la nga ko jëndee woon ngir dimbali ko. Mhm. wut ci yàlla daal liggéey bu ci nekk ci nga mënee wut yàlla. xam ni dëkk bi dafa metti ñu dimbalante suñu biir. d'accord en tout cas man moom dama bëgg voilà man aussi dafa am lu ma bëgg lancer dama bëgg monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye. mu ma mu joxal ma Aliou Sow xaru tabaski man loolu daf may nee torop mu mu kii ko mu jox ko mu def ko ndàmpaay. li mu ko li mu ko causé démb ci ci ci bi. ba jox ko xaru tabaski daal man loolu dina ma neex et puis nga dem maamu xar nag. mais ñu ngi koy def ah, ñu ngi koy def ñoom ñu ngi jënd ay xar. di ko jox ay kilifa ci réew mi. di bàyyi ñi nga xam ne carrément ñoo ko gën a mérito. dañ leen koy jox dañ leen koy jox pour neexal leen. waaw neexal am na ko gën a mérito nag. d'accord alors euh, mu ngi noonu. Euh, waaw c'est très scandaleux bi laay ñi jënd man loolu rek ñoo rek ñoo may déranger. Eh? ñi jënd xar ay 1 million 500 mille.